bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wa salla allahu ala sayidina wa nabiyina muhammadin ibni abdillah salla allahu alayhi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim xam naa fi ñuy njëkkee mooy sant yàlla ñu jàppandale voyage wi nga xam ne tawfiiqu yàlla rekk ay tax nit mën koo taxawee ndax luñ am ba ñëw fi kat am nañu am lu ëpp lool fuuf te dikkuñu fi wér guñ am it ba ñëw fi am na ñu gën a wér te dikkuñu fi benn xalaatuñ ko walla bëgg nañ ko waaye yàlla mën loo wut leen ko yal na ko yàlla mën loo ñu ko mënut yëpp te bëggloo ko ñu ko bëggut yëpp te def loo ko ñu ko defagut yëpp waaye ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci mënuñoo sant yàlla assez mënuñu ko sant ci tawfiix ji jëf ji nga xam ne new na jëf ju ko gën a màgg muy ziyaare si yonantu sallallahu alayhi wa ak ziyaare ji néegub yàlla bi nga xam ne mooy néeg bi mu gën a fonk ci kaw suuf kon ñu sant ko ci barab yu tedd yooyu sant ko ngir jëmm tedd ji sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu sant ko ngir jamono jim ñu tànnalit muy jamono ji nga xam ne moo tollook weer wim mu juddoo woon sallallahu alayhi wa di leen sant ngir choix bi ngeen porté ci ñun ñi nga xam ne ñoom ngeen àndal moo xam ñi jógee Sénégal jaaree ci Marwa voyage bu imam Mohammed Bamba Dramé suñu mag suñu kilifa suñu lépp mu yebal doomam mu représenté ko fii mooy suñu doom ji toog di Mahmoud ànd ñun ci liggéey bi wala yéen ñi joge Amérique jaaree ci almadina travel yonentu nee na sama borom nee na abdi lam yashkur nii ida lam yashkur man ajraytu nicmata ala yade kon nag ñu ngi leen di sant ci kóolute googu di ñaan sama borom it lépp loo xam ne yéen a ngi koy xaar ci ñun yàlla jox leen ci lu seen jort waaye ñu leen di ñaan it lépp lu ngeen gis ci liggéey bi it lu sooxe ngeen wax ñu ko ndax it ay jaam lañ rek yuy sabablu di jéem luñ mën ngir ku fi ñëw dara du nekk sa soxla lu dul jaamu yàlla fexe ba mettre ñëpp ci condition yoo xam ne euh, da nga mën a féex li lay sonnal daal mooy jaamu yàlla ndax ñu fi miin a ñëw léegi-léegi da gis ñu fi ñëw problème mu lekk dañ koy am problème mu nekkuwaay bu baax walla buñ amee lekkit lekk ya du doy soo gi mi sama seede la xëy na yi ñuy joge Sénégal waaye yi ñuy jógee Amérique néew na ngeen gis programme umra boo xam ne dafay am ndékkeeg reer programme umra yi ci gën a bari yëpp ndékki rek lay léegi nag ñu gis ne bu fekkee ni ñëw nga war nekk di toppatoo ji loo lekk loolu mi ngi tardeel mu ngi xatalit temps bi nga xam ne yaa ngi ko war a def fii beneen bi temps bi biñ fiy def bu dee ci amerique programme umra yu bëri duñ passé huit jours balaa ngaa yegg si Medina daanaka ñetti fan nga fi am yegg màkk balaa ngaa nooy ñu ne ñibbi nañ ah, alhamdulilah nag bu fekkee ne gañ gi du bëri it nit ñi ñëw fii jaxasoog yonentu sallallahu alayhi wa sallam eh, jëmu makka jaxasoog atmosphère kaaba yàlla gi eh, fukki fan nag nangam yooyu ñu fi am mu nekk pour ñun ñëpp moo xam ñu jógee Sénégal mbaa Amérique benn eh, camp d'entraînement training camp boo xam ne lañ fay jëlee bu ñibbee jàmm bu sobee yàlla dañuy fas yéene mu continuer voyage wu mel nii daf ñuy wan ne lépp luñ foog ne mën nañ mënuñu ko mën naa am ñun ñoo ko foog rek waaye mën nañ sax lu ëpp daan nga gis ñenn ci ñun ñoo xam ne buñ demee jàkka ja ajjuma ak ajjuma la te yàlla dimbale la julli juróom yëpp nga koy defee fii moo ne boo ko sabab loo fa nga nekk it boo mënul julli juróom yëpp it dana am yenn ci julli yoo xam ne daa ko mën a defee ca jàkka ja kon nag loolu mooy li nga xam ne foofu la njëkk a tàm fa la ñuy tàmbalee imaam Ghazali rahmatullah alayhi dafa ñuy jàngal ci téere bi Ihyaa Ulumi Diin li ñuy tuddee asraarul ibaada maanaam mbóot yi ci jaamu yàlla mbóot yi ci jaamu yàlla maanaam jaamu yàlla dafa am biti waaye biir gaa ëpp doole bi mu see ci aj ak nag mu ñuy jàngal ne jaam bi su jogee ne ma dem Makka mu ne na xool ne aj ak umra lépp dafa am connotation ak yowmul qiyaamati lépp dafa am connexion ak yowmul qiyaamati so that's the first thing we need to know that everything that has to do with hajj and umrah has to do with the day of judgment suñuy génn suñu kër yi nee na mi ngi ñuy fàttali bés bi ñuy génn àdduna muy kër yiñ foog ne moom lañ moom topp àll bi jafe-jafe yi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi ba bi ñuy yegsi Madina mbaa ba ñuy yegsi mag mu ne jafe-jafe yooyu niroog lool jaam bi bu génnee àdduna jafe-jafe yi muy wanteek moo xam sukuraati ndee la wala laaju bàmmeel la walla mbugal bu fa amee yàlla na ci yàlla musal walla ya nga xam ne ñooy xew ci yowmal qiyaamati ba bi yàlla di péncoog moom ba muy xam sooram lan la nee na it jaam bi su génnee moo xam ci àll bi la jaar di aji mbaa muy umra ji mbaa mu dugg oto mbaa mu dugg avion ala fokk dana jax dana jànkuwanteeg ay jafe-jafe toogaay bu yàgg beek dégg nga siège bi nga toog ñi nga toogal ñaari minutes yu ne ñu ne la may ma ma jóg dem ci toilette yeeg dégg nga boo dee nelaw ba kii confortable ñu ñëw yee la defaral sa ceinture bi wala toogal ñu ngi ci turbulence ak dégg nga euh, ni nga bëgg a nekkee doo ko mën a nekkee li nga bëgg lekk mën naa am sax amu ci avion bi wala sax wala sax wala sax jafe-jafe yooyu te yooyu kat ñooy jafe yi gën a neex suñu maam yi dee buñ jotoon ci jafe-jafe yooyu jël ñoom dañ daan dox ay weer xamuñ sax dañ dikkaatam déet dañ daan yéeg ci bato dañ daan yéeg ci fasaki mbaam yéeg ci gëlëm ki baax la di dagg durée ah, ah, nu mu ci distance yu bëree bare bëri ngir agsi fii ñun nag yàlla dimbale ñu ba balaa ngaa xëpp xippi rek kon coono googu am na waaye daan na gën a métti mu ne coono yooyu nag na la fàttali yow yowmal qiyaamati mu ne boo solee sa yére yi armal soo solee sa yére yi armal mu ne lu la war a fàttali mooy bés bi ngay tàqale koog àdduna yére yi nga amoon yëpp dootoo ci sol benn ñu wutal la ay mètres yi percal ni ngeen koy waxee laxas la mu niroog lool yére yi ñuy laxasoo muy yére armal mu ne buñ duggee ci suñu armal nañu teewlu bës bi ñuy laxas di ñu jëbbal suñ borom nee bi nga naan labbayka allahumma bayka mu ne nga teew lu bës bi ngay wuyu ji yàlla bu la wooyee yowmal qiyaamati ban buur nga fay fekk ndax da fay fekk buur bu kontaan buur boo xam ne ni gërëm na buur boo xam ne préparel na la barab yi gën a rafet ci aljan na préparé na la daraja yi gën a kawe ci yowmal qiyaamati ndax li nga bëgg li mu bëggoon moom nga nekkee woon àdduna wala ndax da fay fekk buur bu mer buur boo xam ne yàkkamti na jot ci yow ba jaarale la foo xam ne ni sa noon bi gën a yées ci noon yi bu ko gisoon du la ko yéene mooy dégg ci góor gu baax Abdoul Aziz Touré Faas fasture yal na yàlla wëttu ko muy wax ne mu ne moom li ñuy wax ci deeg ya ca topp yëpp tiitalut ko te yooyu yëpp yu jara tiit la nag sax mu ne deegeeg malaaka mi ñëw ak xabru beeg dégg nga ya fa nekk yëpp nee na moom lenn rek rekk moo ko tiital mooy bés biñ ne ko pëkk pëkk ci bàmmeelam mu jog nee na ñu téye ci loxoom di ko wëmmat ñëw ba ci kanam boromam nag kenn doxut diggante ak boromam mu ne ban buur la fay fekk mu ne loolu de moom a tiital moo ndax dama fay fekk buur bu kontaanoon ci Abdul Aziz buur bu bég ci li ma doon def buur bu ma yàkkamtee teral wala dama fay fekk buur bu ñëkkal kanamam ci waxin buur bu ma sàññ buur bu ma jéppi ndax li ma nee woon nee na taxawaay boobu te yàlla nee na ci alxuraan kat wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati farda yàlla buy pencoog jaam ñi amul kenn kenn kenn kuy nekk ak yow fekk yaa ngi wax ak sa borom kenn nag du ndey du baay du doom du jëkkër du jabar du xarit du àndandoo wa kulluhum képp kenn ci ñoom aatihi a ci dikkal la yàlla yowmal qiyaamati bu bés pencaa fardan moom kot waaw yonentu nee na ku nekk ci ñun yàlla dana wax ak yow sa digganteeg yàlla benn interprète du ci nekk kenn du ko dégg ku dul yow ak yàlla te it mën naa soppi wax ja ba gàcceel la ba li nga nee woon yëpp pencam yàlla mi xam ko waaye mën na laa suturaalit ba la nga nee woon moom kotta koy xam bu mu ci mën a xew rek ban buur lañ fay fekk yàlla nañ fa fekk buur buurab yërmande imam Ghazali mu ne nga teew lu loolu bi nga naan labbayk allahumma labbayk ndax labbayk allahumma labbayk mooy wuyu naa la yow sama borom gannaaw bi ma la wuyoo ndax ñun ñëpp kat yàlla waxoon nañu alastu bi rabbikum ñu ne ko ahankay xanaa du maa leen moom ca azal ñun ñëpp ñu ne ko ahankay yàlla nee na bi mu créé aadama ruuxam ruuxi jaam yi nga xam ne ñoom la fas yéene dégg nga euh, bind yëpp daf leen laaj xanaa du maa leen moom ñu ne ahankay ruu googu moom xam na yàlla ruu nag yàlla téew ko fam ko neex ba bés mu wàccee ko ci biiru yaay boo boo fekkee xale ci biiru yaay boo ko ne am na fu gën a rëy biiru yaay daf lay wax déedéet li bëgg yëpp ma fa bu seddee du ko yëg bu tàngee du ko yëg deret jafa nekk ak lépp terewul moom yàlla dana ko seetal la gën a neex ci li yaayam di lekk mu ñëw mu koy dundee bu génnee ci biiru yaay yi tamit ci nekk ci biir néegu yaayam xamul dara day foog ne néegu yaayam rek a rëy ba bi muy génnee ci ëtt bi di mën a raam ak a dox foog ne ëttu baayam bi rek ba bi muy génnee ci dëkk bi foog ne dëkk bi mu dëkk rek a rëy ba bi muy génnee ci àdduna bi soog a xam ni àdduna rëyee waaye ni àdduna rëyee ci ñun ak lum rëy rëy ni biiru ndey toll ci liir noonu la àdduna ni biiru ndey toll ci àdduna noonu la àdduna toll ci àllaaxira baa mu gën koo tuuti waaye nit ki moom fi mu nekk rek lay foog ne moo baax jàmm nag yàlla teralee ruuxam fu mu nekk ci àdduna waxuma la ruux gi waaye machine bi koy eh, machine bi ko ga gàddu sax dañ koy yenu xale bi yaayam a koy yenu ci biiram bu amee doom commencé ko yenu ci loxoom ak ci gannaawam di ko boot bu demee ba mën a dox yàlla du ko seetaan mu indil ko daaba yeeg machine yi velo yeeg oto yeeg lépp di liggéeyal doomu aadama yàlla nee na wa saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi l ardi jamian minhu li ci asamaan ak yi ci suuf yëpp yéen a tax mu bindu doomu aadama mbóot moomu ci moom rek la ko yàlla def mbóotam war ci moom rek la ko def ci biir ndeyam lay war bu génnee di war ci loxoom bu génn di war ci gannaawam ñu koy fopp di ko teg ci ay charrette ak i oto ak i avion ba bu dee sax dañ koy xenu ci kaw tàdd gi foofu nag lay waree ba faw wala ca lay gëj a waree ba faw wa inna daara al axirata la hiya al xayawaan nag yàlla dugal ci jëmm ji imaam Haddad mi ngi nettali mi ngi mi ngi ñuy wëttuloo ne yow ruux ndax dangay gërëm nekk jëmm ju tilim ju ñuul ju ju ju ju xamut ji ju lëndëm ji ba fàtte loola barab yu leer ya nga nekkoon xanaa nekkoon ci xadara yàlla yi subhaanahu wa taala kon nag fexeel ba booy dellu safa bi nga indiwaale woon ci àdduna nga delluwaale ko loolu rek mooy suñu mission ci àdduna yaa ayuha ruuxu hal tarra mujawaratan ala dawaami li hada almudnibi alkadiri alasta kunta wala jismun tusakinuhu alasta fi xadarati llahi faddakiri xata jucilta bi amrillahi fi qafasin li yubtalaak fakun min xayri muxtabari ba yàlla indi ñu fii nag muy kasoog na wala wala muy kasoog natt wala muy nattub kaso yonent mu ne addunya sijnul mumini wa jannatul kaafiri labbayka googu nag yàlla waxoon ñu wuyu googu ñu ko wuyu woon moom lañ koy wuyu waatit bu ñëwee fii seydna ali ibnul xusayn sëtu seydna aliyu la sëti seyd doomu seydna xusayn zeynul abidin lañ ko daan dàkkantale dafa daan sujjóot di ki yàgg bañ tuddee ko as sajjaat sujjóotkat bi wax nañ ne mos na nekk di julli fim mu sujjóot ci biir euh, néegam kër gaa ngi takk ba safara si dugg ci biir néeg bi ba wër ko ñu ngi koy woo naan ko safara si safara si yaa safara si safara si mu sujjóot fa ba lu neex yàlla mu soog a jox bi mu siggee la gis safara si ñu ne ko xanaa déggoo bi ñu lay woo naan safara si mu ne safaray àllaaxira de moo teewoon ci sama xol moo tax déggu moon wala gisu moon safara si kooku bi muy aj bi mu ñëwee ba ñëpp armal pour commencer la bayka yi mu ngi war ci kaw gëlëmam ne patt waxu dara ni ñu ne ko alaatu la bii yaa ali xanaa doo commencé doo wax armal nag wax la bayka mu ne damaa ragal su ma ne yàlla la bayka allahuma la bayka mu ne ma laa la bayka laka wala saadayka mu ne tontu li laay ragal su ma ne yàlla maa ngi nii di la wuyu si maa ngi nii ci sa kanam est-ce que du ma rejeté ne soxlawu ma sag wuyu te nitu yàlla ki dafay wax ne sooy julli ak jëf jooy def mu ne loo wax rek xamal ne yàllaa ngi lay tontu yéeg dégg nga ko wala déggoo ko mu ne soo ne allahu akbar mu ne yàlla neen la wax nga dëgg wala mu ne la déedéet li nga wax du dëgg boo ne yàlla moo gën a màgg lu yàlla yàlla dina la wax ne wax nga dëgg mu ne walla mu ne la deret waxoo dëgg lu waral loolu mu ne su fekkee ne bi ma ne allahu akbar yàllaa gën a màgg sama bànneexu bàkkan ba bu ma naroon def loo dara ma xam ne li yàlla bëggut ko ma ba li ma sama famille bëgg a imposer neexut yàlla ma ba lii la societé bi bëgg waaye neexut yàlla ma ba lii moo xew waaye neexut yàlla ma ba su fekkee mën naa résister yépp pour li neex yàlla kon kay yàlla gën a màgg ci man lu dul yàlla mu ne waaye su fekkee mën naa def lenn lu neexul yàlla ngir sama bakkan mbaa ngir neexal ko bëgg ma neexal ko nee na kon yàlla bëgg gënta màgg ci man mu ne naka noonu bépp jëf nag boo def ci julli am na luy communiquer ak yow dégg nga comme déggoo ko aj gi it noonu Seydina Ali nag ibnu Zeyn al ibna ibnu Xuseyn mu ne moom loolu la teewlu bu ne yàlla labbayka allahumma labbayka moom lu ko yàllay tontu Imaam Ghazali mu ne booy booy ñëwee ba ci aj nga teewlu lool mu ne naka noonu ci barab yi ngay dem yépp boo demee ba dugg ci kaaba giit nga xam ne yaa ngi ci euh, pale buur nag ndax yàlla moo teralee kaaba gi ne sama néega nga xam ne yaa ngi ci néegam nag bo nga am nga nga nga xam ne yow yaay yaa yaay yées faqir boobu nga xam ne amul dara ñu may ko accès ci pale buur bu ñàkku dara te soxlu dara ci lim am kooku na muy gëmee ne balaa mu faa jóge li mu bëgg yëpp buur boobu dana ko ko def mu ne nu a dana ko ko defal nu raw loolu nga war a gëmee ne bi nga ñëwee ci néegub yàlla bi li nga fi bëgg yëpp dana la ko defal ndax foofu yàlla du fa delloo ñaan booy doxit diggante safa mar marwa nga mel ni dégg nga ku ñàkk kooku ak ku dégg nga dag boobu dox ci diggante dingërëy euh, buur bi mu seet si wala buur bi mu ñëw maanaa aj wala umra lépp dafa am connexion ak àllaaxira waaye dafa dafay delloo si jaam bi ci fi mu war a no nekk mooy suñu suñu suñu dara suñu nekk dara ah suñu nekk dara when we acknowledge our nothingness that's when we become something because of Allah tabaraka wa hmm? so I was saying that when we leave our houses and come to Umrah, number one, we want to see ourselves as leaving this dunya and meeting death. And all the difficulties we go through when we come here must remind us of the difficulties that are there between death, going to the graveyards, going to the questioning of the angels, and going to the day of judgment when we will all be facing our deeds facing everything that we have done and Allah tabaraka wa ta'ala will judge us accordingly or according to his rahmah may we may he judge all of us according to his rahmah amin so everything that has to do with hajj and umrah has to do with akhirah and when we say labbaik here we are O Allah to answer your call we want to imagine that response that comes from Allah tabaraka wa ta'ala what response are we going to get whether it is welcome here here or my slave or you are rejected because you are such and such. But we want to have hope. We don't want to have fear that overcome our, overcomes our hope. And whatever we do during this trip, it has to remind us, you know, the day that is about to come. Every single action actually in dunya has to remind us of akhirah. When you see darkness, let it remind you the darkness of, of the grave. When you see lights, let it remind you the light of Jannah. When you see something good, let it remind you the goodness that you will have in Jannah. When you see something bad, let it remind you the ugly things that is in, uh, that are in in in in in, in hellfire wal iyaadu billah. Imam Ghazali dafay wax ne loo gis ci àdduna rek sax dafa la war a fàttali àlaxira mu ne boo gisee lëndëm sax na la fàttali bàmmeel ak lëndëmaay ba boo gisee leer na la fàttali leeruk yàlla na la fàttali aljanna ak neexaay ba lu neex lu ne mu ne na la na xamal ne échantillon waa aljanna la rek waaye neex dëgg-dëgg aljanna la am waaye lu naqari loo gis fii nee na du naxar échantillon la rek ci naqar safara ndax fa la naqar am yem yal nañ ci yàlla musal laa xayra xayrun baadahu naarun wala charra charrun baadahu janna yiw du yiw mukk su fekkee ne bu jeexee rek safara dikk waaye ay mbaa natt du natt mukk su fekkee ne su jeexee rek aljanna dikk léegi nag ñu ngi nii ci voyage umra umra dafa am importance lool ba yegg ci am ci boroom xam-xam yu jàpp ne sax farata la kon ñu ñu bàyyi loolu suñ xel ku mel ni imam Shafii ak imam Ahmad ibn Hanbal ak al imaamul Buxaari ñoom dañu jàpp ne umra farata ñoom dañu jàpp ne umra farata la am na sax ci xadiisu yonantu joo xam ne bi muy wax ponk lislaam yi ba mu tuddee aj daf caa boole umra yàlla it ba muy wax ci alquran na ngeen mottali aj te yàlla tax yamul ci aj rek daf ne wa atimul xajja wal umrata lillah moo tax ñoom ñu gis ne umra romb na di sunna farata am ñu gis ne nag sunna la waaye sunna su am doole muy ku mel ni imam ak imam abu xanifa Mm-hmm. loo xam ne nag dañuy def def le sunna lam farata la boo ca nekkee war ngaa fonk lool li ngay def nga xam ne ak jaamu yàlla la goo xam ne dafa war ci sa ndodd li ñeel yàlla boo ci amuloon dara sax parce que ñu bari ci ñun fañ foog ne dañuy jaamu yàlla ngir dem aljanna aljanna jaamu yàlla du prime dégg nga aljanna moom yonentu nee na kenn ci yéen du dugg aljanna ndax jëfam ñu ne ko ba ci yow yow yonantu mu ne ba ci man illa an yataxammadani llahu bi rahmati lu dul yàlla muuree ma yërmandeem wallah yonantoo ko wax de lan yadxula ahadukum aljannata bi amalihi qaalu wala anta ya rasul allah qaala wala ana illa an yataxammadani llahu bi rahmati kon jaamu gi lan la jaamu gi njëgal bind gi la ndax yàlla nee na binduma leen lu dul ngir ngeen jaamu ma kon jaamu gi njëkk la pour bind gi buñ ci amutoon dara sax daf ñoo war bu ñu leeroon ne buñ jaamu yàlla ba dee safar la ñuy yóbbu sax dañ ko war a jaam yal na yàlla musal ci safara waaye nag sañ nga boo jaamoo boo defee li la war nga yaakaar nag nga ñaan nag waaye bu ca sukkandiku de imaam ibnu atailahi sakandari nee na bokk na ci liy wane ne ci sa jëf nga sukkandiku waaye sukkandikuwoo ci yàlla boo juumee tiit nee na bu fekkee ne soo juumee ñàkk yaakaar ci yàlla kon yow yaa mosoo yaakaar yàlla sa jëf nga yaakaar bu fekkee ne yàlla nga yaakaar soo juumee it danga nga tuub de waaye du tax na nga ñàkk yaakaar danga tiit sax nag waaye du tax nga ñàkk yaakaar kon mi ngi ci diggante sunna suñ fonk lool la ak farata ba noppi yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ci ngëneel yu bëree bëree bëree yoo xam ne suñ ci doon wax rek mat na waxtaan wi bokk na ci yonentu nee na diggante umraak morom ka dafay kafaara bépp bakkaar al umratu ila al umrati kafaaratun lima baynahuma yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dee leen toftale aj ak umra saa yu ngeen mënee aj aj leen saa yu ngeen mënee umra umreen lu tax mu ne aj ak umra dañuy dàq bàkkaar di dàquk ñàkk koo xam ne ni bari nga bàkkaar del umra yàlla baal la bàkkaar yëpp koo xam ne nii ak ñàkk dalaa sonnal del umra yàlla dindi ñàkk gi yëpp mu ne ni nga xamee ne tëgg bi loolu muy def ci weñ gi muy mu koy muy dindi impureté yi nekk ci weñ gi ba mu set wecc nee na noonu la aj ak umra di raxasee bàkkaar ci jëm ci ci doomu aadama bi wax na sax moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne saa yoo demee bay wër kaaba gi tànk boo séq mbaa boo teg yàlla daf la ci defal ñett benn daf la ci yëgatile daraja ñaar daf la ciy bindal tiyaabo ñett daf lay jéggale bàkkaar tànk boo séq nag ak boo teg yaa ngi dégg de wër kaaba gi juróom-ñaari yoon yi dafay tax yàlla baal lépp loo defoon ci bàkkaar te yooyu yëpp a ngi ci ci umra gi kon nag umra yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na ki koy def na xam ne ganuk yàlla ñun ñii de li ñuy ñàkk-ñàkk solo bu nit ñi bu nit bawoon ñëpp ñëw gane si ñu danañ ko jox li ñu am de danañ ko teral kemtalaay ak niñ toll ak liñ mën waa ku toll ni yàlla bu la teralee kem talaayeg ni mu toll nag te moom lañ gane si yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na ki aj si ak kii umra si nee na ganug yàlla lañu wafdullahi lañu daahum fa ajaabuhu daf leen a invité ñu wuyu si ko moo tax bañ luñ ko ñaanit mu may leen kon fekk yéen maanaam jamono bi ngeen nekkee ci umra bu leen xeeb dara lu ngeen bëgg lu dul ñaan ngeen ko ndax loo bëggit lum tuuti tuuti bul foog ne tuuti ga dana tax nga mën koo amal sa bopp bu ca yàlla àndut ñaan ko dafa daan wax ne bul xeeb dara gis nga xorom si ngay xorome sa ciin sax bu ko xeeb ci ñaan waaye nag booy ñaan ku toll ni yàlla bul yéem li ngay ñaan bul wax ne lii mënta nekk déedéet sooy def projet nag da ngay def loo xam ne nii lu defable la ah loo xam ne lu réalisable la lu raisonnable la nga ne ah lii de mën naa koo def à court terme lii mën naa koo def à mi terme lii mën naa ko def à long terme loolu yow la mais sooy ñaan xamal ne l'impossibilité n'est plus française booy ñaan xamal ne yàlla there is nothing impossible to him amul lu mënta nekk ki ngay ñaan mooy ki moom lépp mooy ki mën lépp mooy ki xam lépp mooy ki sañ lépp mooy ki yor lépp subhanahu wa taala waa tax kii umra lum ñaan rek yàlla may ko léegi nag ña ba nar a jot waxtu bi dafa gaaw ñu dugg ci umra gi xam nañ ne umra luñ mënta ñàkk a def la benn muy sunna soo xam ne su rëy rëy la te sunna su tuuti sax amut ndax yonentu lu mu def rek yàlla moo ñu ne am ngeen ci moom ab exemple bi gën a baax yàlla ñu ne ku topp yonentu topp ga yàlla yàlla ne ñu ne bu ngeen ko toppee da ngeen jub wa in tutiuhu tahtadu man yutii rasula faqad ataa allah lu mu leen indil def leen lu mu leen joxit jàpp leen wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu góor gi are you following you getting me a little bit okay maybe when I finish I can summarize for you all right or that that is here so I was just saying that Umrah is either an obligation or a highly recommended sunnah. An obligation to every single Muslim, according to Imam Shafi'i, to Imam Ahmad, and Imam Bukhari. A highly recommended sunnah, according to Imam Malik and Imam Abu Hanifa. So, in both cases, Umrah is of extreme importance. And because of Umrah, Allah Tabaraka wa Ta'ala expiates once, expiates once, once a sin. And Umrah, you know, removes sins and poverty, as the Holy Prophet wasallam, uh, says in different ahadith. And he also said that when you are in Umrah, know that you are a guest to Allah. Whatever you make as a dua, know that it is going to be accepted by Allah tabaraka wa ta'ala. léegi nag comme ñu ngi fii nii lu bëri xam naa ne jàngoon nañ ko pour être pratique au lieu ñuy dugg ci lii mooy lii lii mooy lii nañ wax bu ñuy umra naka lañ koy defee step by step pas à pas du noonu nañu wax bu ñuy umra bu ñuy jógee fii Medina ba ba ñuy dem Makka naka la ñuy def subaak jàmm inchaa allahu la ñuy jógee fii bis bi war na fee yegg si bu une heure jotee ñun amoon nañu ñaari option mooy option wu bus bi ak option wu train bi mm-hmm. option wu bus bi ak option wu train bi bu ci nekk dafa am lu ko lu mu jagoo ak lu mu jagoowut euh, suñu umra yi mujj léeg-léeg ñu jël bus léeg-léeg ñu jël train lu tax parce que train bi ñaari waxtu rek lay def nga yegg waaye nag li tax bus bi am gën gën train bi mooy train bi soo ci naree dugg doo jaar fii yonent bi jaaroon armaale fa doo mën a doo mën a wàcc ndax train bi moom boo bu ñu fa naroon dugg fii la ñuy defee lu ñuy def yëpp armal dem ci station bi dégg nga de dugg balaa nga am cinq minutes sax romb nga miqa bi léegi nag comme am na euh, euh, nu mu tuddati comme pour être en groupe am pour ñu bénéficier yi ci loolu ñu jël bus bi parce que bus bi biñ koy ragal bu dee aj moom ñun duñ jëlati bus moom parce que aj moom boo jëlee bus ci yoon yi nga yendu waaye umra du xatul dégg nga te ay bus climatisé la confortable euh, te yi tamit yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne xudu anni manasikakum jëlee leen ci man seen seen jaam kon dañuy fexe def lim defoon fekk ñu ngi koy mën su demee nag ba am extreme difficulty lu mel ni jamonoy aj léegi nga xam ne mën ngaa yendu fanaan ci yoon yi mën nga armal balaa ngaa rom parce que l' essentiel mooy nga armal balaa ngaa rom bu miiqam yi mais soo armalee fa mu armalee woon nag moo gën dégg nga kuy jóge Medina dafa am nga fooy armale fa ñuy wax dul fa parce que armal mooy ponk bi gën a am solo ci ponki dégg nga euh, aj ak umra dégg nga ku nekk nag fa nga jógee mu lay yóbbu makka doo fa romb fekk ah, te armalo ihraamu miqaatin fa dul xulayfa li tayba li shaami wa misra al juhfa qarnun li najdin zaatu irqin lil iraq yelam lamul yamani aatiha wifaq dañuy wax ni kuy jógee madina dul xulayfa ngay armale boo jógee shaam wala misra juhfa ngay armale boo jógee najd qarn ngay admiré mooy qarnul manazili wala qarnu thaalib boo jógee iraq zaatu irqin ngay armale boo jógee yaman yelam-lam ngay armale ñun nag alhamdulilah ñu ngi jógee fi yonantu jógee woon sallallahu alayhi wa kon dañuy armale fi yonantu woon muy zul xulayfa moom la ñuy tuddee ab yaaru ali léegi waaye zul xulayfa la tudd ñu koy tuddee ab yaaru ali benn barab bi la rek mooy fi yonantu sallallahu alayhi wa sallam bu ñuy génn madina rek gis ko mooy fi yonentu sallallahu alayhi wasallam armale woon léegi nag bu ñuy jógee fii nañu fexe lépp loo xam ne aw wàccaay la nañ ko def maanaam balaa nga armal am na ay sunna yuñ la wax ne sun sunnaay yonentu la sopp nañ nga def ko balaa ngaa armal bokk na ci yooyu sangu mu mel ni nit ki bu doon sangu farata na muy sangoo noonu sangu mu mel noonu lañ bëgg nit ki sangu ko balaa moo armal sangu moom mën nañ koo defee fii ci hôtel bi boo sangoo ba pare it bokk na ca yooya lelli say we lelli say we mooy dagg say we bokk na ca it lépp loo xam ne private hair la nga dindi ko maanaam karaw yi nekk ci yaram ak yooyu nga dëñal ko karaw yi poqataan ak yu mel noonu bokk na ci loolu laal gët gëtt mooy parfum dégg nga lépp loo xam ne rek euh, mën naa am di ko soxlaa def fekk yaa ngi armal dañuy bëgg nga def ko balaa ngaa armal ngir doo ko soxla lu mel ni sa wey bu bu bu bu guddee boo ci biir armal gi boo ko daggee da ngay am pénalité booy fay bëgguñ loolu nag ñu bëgg nga teel koo dagg balaa ngaa dugg ci armal gi naka noonu karaw boo ko daggee te tay ko dangay ngay fay pénalité ñu bëgg na nga teel koo dagg bala ngaa dugg ci armal naka noonu ki armal dafay ñaq dafay sonn te buñ ko mayee mu sangu it mayuñ ko mu sangook lu am parfum mayuñ ko it mu laal parfum ñu bëgg nga laal parfum balaa ngaa balaa ngaa armal balaa ngaa armal waxuma balaa ngaa sango balaa ngaa armal sango ba pare dagg yii nii yëpp mën ngaa laal parfum mais ci sa yaram wi nag ci sa yaram wi boo laalee parfum ba pare ba def yii nii yëpp nga sol nag mbubu mi nga xam ne mooy mbubum armal bi dégg nga de nga sol mbubu mi nga xam ne mooy mbubum armal bu dee góor la eh, eh, ñoom dañuy wodd ndeysaan dañuy sol wodd ak eh, moom la ñuy wax tëraxlaayoo dégg nga ak rida mooy làmbaay isaar ak rida tëraxlaay bi mooy nekk ci suuf làmbaay bi mooy nekk ci kaw dégg nga su ko defee moom mënta sol loo xam ne ni dañ dañ ko dañ koo ñaw moom góor maanaam bu buñ ne dañ koo ñaw mooy lu peeg yaramam comme yéen ni ngeen ko mënee bu dee jigéen la nag lépp loo xam ne nii rek mën nga koo jullee mën naa armal lépp loo xam ne mën nga ko jullee mën naa armal waaye nag bu mu nekk loo xam ne dafay amuk taar-taarlu mooy lu bari couleur ak yu attirant yeeg yooyu le comme ni ñu koy defee lu ñuul kukku baax na wala lu weex tàll comme ni ngeen koy defee bi nga solee yii nii yëpp nag ba léegi armala ko boo laalee parfum yi bul wax ne parfum bi nekk ci sama yaram bi moo solee yére yi daf ciy taq du ci dara gannaaw bi nga koy def ci sa yaram armalagoo rek même booy sol yére bi mu takk ci dara nekku ci dégg nga de ndax ndeyaayu surtout defoon na xarmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy armale ba pare defal na ko kii ba boo gisee yonent bi yaram wi ak jëbi mi ngi mi ngi melax ndax ndax ndax gëtt gi mu ko defal dégg nga waaye nag boo xasee sol malaanu armal bi fexeel ba bu laalaat beneen euh, parfum ci malaan moomu léegi nga xam ne moom nga war a armale wala boo armale ba nopp lii yëpp nag préparation armal la ah te heure bi dafa jot ban heure la jot la ñuy julli ah cinquante neuf ok am nañ temps tuuti waaye xam naa ne ñoom dañuy bëgg a commencé seen reer waaye ñu ñu ñu ñu ñu gaawal rek donc ponk bu njëkk bi mooy armal wax naa ne fii la ñuy préparé sangu nañu dégg nga dagg nañu suñuy karaw dagg nañu wey dégg nga laal nañu parfum sol nañ suñuy yére xaar bus bi ñëw bu bus bi ñëwee ñu ñëpp ñu dugg ci mu yóbbu ñu bañ génn Madina ci ab yaaru Ali ñu wàcc foofu bu ñu wàccee euh, dégg nga am na palaasu jigéen ñi am na palaasu góor ñi ñu julli ñaari ràkk ni ko yonantu sallallahu alayhi wasallam defee woon am na ñu ne sax julli ñaari rakk yi c'est pas nécessaire ndax yonantu ba muy julli ñaari rakk yi mu doon julli dafa tombe woon ak farata la woon mu julli ko waaye terewul am na borom xam-xam yu ne nga julli ñaari rakk balaa nga armal ñaari rakk yooyu nga jàng ci rakk bu njëkk bi suratul fatiha ak qul yaa rakk ñaareel bi suratul fatiha ak suratul ixlaas soo jullee ñaari rakk yooyu ba pare soo neexee mën ngaa armalee foofu nga toog mooy nga war ci biis bi soog a armal ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu jullee ba pare dafa war ci kaw gëlëmam jublu Makka soog a armal te nag war ñëwaat ci biis bi ñun ñëpp ñu toog ci biis bi armalandoor dafay gën a yomb bu ko defee dafay tax doo juum dafay tax doo sikk sàkk ne ndax li nga wax ak li nga def baax na am déet ni ngay armalee mooy labbayka allahumma umra ànd ak yéene dangay ngay yéene umra ci sa xol ba pare wax baat yi yi nga xam ne ñoo tolloog yéene jooju mooy labbayka yi wuyu naa la yow sama borom waaw labbayka allahuma wuyu naa la yow sama borom umra ci umra maanaam wuyoo naa la fas yéene dugg ci umra gi wala wuyoo naa la tàmbali umra gi here I have oh Allah to perform umra those are the words you would say when you arrive you, you're getting it Ibrahim is translating for you okay so we don't have time then for the English Ibrahim thank you for translation. Uh, a poor translator, I think. Uh, <laughs> but, but still good, alhamdulillah. So, léegi nag bu ñu duggee ci biis bi biis bi dégg nga man wala paap kenn ci ñun mën na ko wax baat par baat ñi ci des di ko répété ba nga xam ne dañu wax dañuñu leer ne lépp baax na lii dafa baax rek ñu xam ko mais terewul lépp ñoo koy defandoo incha allah ah waaye nag you never know mën nañoo dem ba foofu ñu réeroo fekk nag xam nga yow li ñu war a def waaye nañ fexe ba réeroo moom du am incha allah yit du am parce que group bi dégg nga niñ toll nii am duñ duñu réeroo waaw ah, daan nañu am ay group bu 200 personnes te réeroo donc groupe bi foog mën a dinañu réeroo bu soobee yàlla labbayk allahumma umra gis nga baat yooyu ak yéene léegi nag nga armal dégg nga ñu bëri moom buñ solee malaan mi dañuy wax ne sam armal naa déedéet malaan mi malaanum armal la dégg nga sangu mi sangum armal la julli gi julli mu armal la dégg nga dagg yeeg yooyu yëpp préparation armal la lan mooy armal dëgg-dëgg mooy yéene ji ngay am ak baat yi ngay wax ca jamono ja ngay yéene loolay armal armal mooy dugg nga mu ngi mel ni kabbaru armal bi nga jàppee def loolu yëpp préparation julli la kañ nga armal bi nga ne allahu akbar fekk yaa ngi yéene julli loolay armal moo tax kabbar moo ñu koy tuddee kabbaru armal dégg nga léegi nag buñ defee loolu ba pare ñu commencé labbayka nag labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk laa sharika lak foog nga wax ko benn yoon lum tuuti tuuti waaye nag warta dakkati continuer di ko wax bu dee yow góor wax ko ca kaw bu dee yow jigéen mën nga ko wax ndànk waay bu ñu arrêté fekk baa di deewuñu waaw di ko wax rek nag waaw léeg-léeg boo sonnee nga noppalu tuuti après nga nga nga nga kii sooy wàcceek sooy yéeg lu ne yaa ci la bayk ba bi ngay yegg mag suñ yeggee nag li ñuy def bu buñ yeggee ci otel bi la ñuy egg la dem njëkk dégg nga loolu ba njëriñ la am njëriñ li mooy mën nañoo beesalaat sangu waaye du ànd ak parfum du ànd ak dara mën nañoo beesalaat si sangu ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam mu duggee màkk dafa sangu woon moo ñu ne sunna la boo duggee màkk nga sangu xëy na dafa xëy na tilim baa tax ndax yoon wi yàgg waaye def na ko rek te ñun gannaaw def na ko rek mën nañ ko def mooy kon bu ñu yéegee ci suñu hôtel dégg nga jël suñuy caabi bu ñu yéegee ci kaw mën nañoo xëppoo ndox bu ñu neexee dégg nga dugal bagage yi dugal suñu kii yëpp ñoom ñooy dugal bagage yeeg yëpp sax waaye ku nekk xam sa néeg ba pare nag ñu ne heure sàngam la ñuy dajee ci réception bi su ko defee nag dem lan dem defi lan déedéet dem continuer yaa ngi ci umra <laughs> ah? ba nga armale rek dugg nga ci umra ji lépp loo xam ne nii doon nga dégg ñu naan kuy aj du ko def ba nga armalee rek mënatoo ko def gis nga ba nga ne la bayka allahumma umra ca nga gëj a mën a daggati say we ci nga gëj a mën a laalati parfum ca nga gëj a mën a daggati sa karaw ca nga gëj a mën a rëbbati rëbbuk jéeri ca nga gëj a mën a dégg labat bu fekkee ne góor nga ku mel ni soo gi bëgg a takk ñaareel ak yooyu mënatuloo ko yow mënoo tamit ku bëgg a takk sëy ku bëgg sëy mënoo koo defal contrat bi sa jabar it sañatoo bànneexu ci moom ci jamono jooju jànneex bu ndaw ak bu mag nga bu ndaw bi dafay wàññi yool bi bu mag bi dafay yàq umra gi dégg nga wax ji léegi nag bu ñu duggee nag ci jàkka ji ñu wax lii képp kuy dugg ci jàkka di wax loolu mooy li nga xam ne mënta ñàkk dégg nga booy dugg ci jàkka xeeti ñaan yi bari nañ bismillah wa wasalaam ala rasulillah allahuma aftah li abwaaba rahmatik booy dugg ci jàkka ji nga xam ne mooy ndeyu jàkka ji nga wax loolu ñaanal kaaba geeg yooyu yëpp yu baax la waaye du nécessaire du nécessité du dëgg bu ñu duggee nag am na borom xam-xam yi mu mu ñuy wax ne fi ngay jàkkaarloo kaaba gi loo fa ñaan sama borom lay nangul man nag damay wax toujours ne euh, au lieu nga naan lii mooy sama priorité lii laay ñaan lii laay ñaan boo jàkkaarloo kaaba gi ne yàlla lépp lu ma la ñaanati nangul ma ko bu ko defee loo ñaanati mu bokk ci biir ñaan googu du dëgg mbóot la de wala mbaxus mbaxus la mbaxus dama leen ko waroon jaay sax boobu dégg de alors bu ñu duggee nag kaaba gi la ñuy la ñuy janoog waaye dem ba ci kaaba gi taxul wër gi tàmbaleegut war gaa ngi tàmbali fu ñuy yeggee ci xajarul aswad hmm? foo mën a duggee rek di nga def nii tout à droite ba ci xajarul aswad li lay xamal ne yegg si xajarul aswad di nga gis benn green light ci kaw bu tolloog xajarul aswad di nga seen tamit nit ñi mooy ëpp nit tout le temps ci kaaba gi léegi nag foofu bu ñu fay yeggee foofu la ñuy tàmbalee tawaaf bu ñuy tàmbalee tawaaf nag pour jigéen ñi ni ñu meloon rek la ñuy mel amul y a rien d'extraordinaire lu ñuy changer pour góor ñi nag seen mbaggum ndeyjoor dañ koy uncover dañ koy dañ koy uncover mooy lan ah, dañ koy muuri waaw ah, maanaam loolu la ñuy tuddee ittibaa ah, wax ittibaa dañuy muuri mbaggum ndeyjoor bi daal di dugal kii bi fii kii ko nale ah ma lépp laa dégg nag pour na <laughs> man may saalum saalum ah alors yoon yu njëkk yi ñett yi dañu bëgg mu gaaw Ah, yoon yu njëkk yi Adama salum salum la <laughs> dañu bëgg mu gaaw pour góor ñi waaye comme mbooloo la ñuy doon gaaw gi dafay nekk rek jegeel jéego yi pour bañ a sonal jigéen ñi ñuy àndal dafay nekk rek jegeel jéego yi te xam nga jegeel jéego yi dafa am beneen mbóot bu ci nekk mooy jéego boo séq lu yonantu waxoon dañ la ci yëkkatilee daraja dañ la ci bindalee tiyaabo dañ la ci jégale bàkkaar kon nu jéego yi gën a bare loolu gën a bari alors ñu war a wër kaaba gi nag juróom ñaari yoon kaaba gi nekkee ñu suñu càmmooy dégg nga booy wër nag xajarul aswad lañ wax ne lañuy ñuy tàmbalee soit nga fóon ko ak sa kan sa sa sa gémmiñ dugal sa bopp foofu ah lu raar lay nekk mu mën mu lu raar lay nekk mu mën a nekk ci jamono ju nekk rawatina léegi walla nga laal ko ak sa loxo fóon loxo bi walla bu fekkee ne aw amu nga yet ndax yonentu bi muy jël naw yetam def ko ci fóon yet ba walla bu fekkee ne loolu yëpp ta nekk te ñaareel loolooy am mooy nga yëgati sa loxo ba pare daal di wax allahu akbar wala bismillahi allahu akbar dégg nga mën nga jujji sa loxo fóon loxo bi dégg nga nga ne allahu akbar am nañu ci yokk bismillahi allahu akbar waaye allahu akbar boobu nag mooy wane ne tàmbali nga foofu ngay tàmbale fi nga yëkkatee sa loxo nuyu kii bi ndax wax nañ ne xajarul aswad mooy ndey jooru yàlla ci kaw suuf yonentu nee na yowmal qiyaamati yàlla fay indi xajarul aswad muy mu am làmmeñ ami bët di seede képp koo xam ne mos nga ko nuyu nekk nag sa rammu yowmal qiyaamati donc kon bu ñuy nekk foofu wax nañ ne mooy sël parti ci kaaba gi goo xam ne dëkkul fi aljanna la joge alors bi nga ne allahu akbar rek tàmbali tawaaf bi amul nag ñaan gu spécifique loo bëgg a ñaan mën nga koo ñaan bi nga jógee ci xajarul aswad dem ci premier koona bi dem ci deuxième coin bi ba ci maanaam troisième coin bi bi nga xam ne moo nekk entre xajarul ah, maanaam fin bi maanaam foofu moo dara nekku fa lul xajarul aswad rek moo moom koy maanaam balaa ngay yàggat xajarul aswad coin bu mujj moom la ñu tuddee ar al yamani da yamani koona soo yeggee foofu nag yonent daf daan ñaan ñaan gu spécifique mooy rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba naar ñaan boobu moom mooy benn ñaan spécifique bu dul loolu nag lépp loo bëgg a ñaan ko ñaan soit kenn di wax ñeneen ñi di répété wala am nga say soxlay bopp nga wax ko ci sa ci sa wala wala wala wala donc li am solo mooy ñaan boobu mooy benn ñaan bu spécifique boo xam ne yonentu daan na ko def te ñaan googu it's a comprehensive dua ñaan la goo xam ne lépp la yóbbaale hmm? yàlla maa ngi lay ñaan xasana ci àdduna di ñaan xasana ci àllaaxira te nga fegal ma mbugalum safara xasana mooy everything dégg nga de léegi nag saa yu ñu ñëwaatee ci xajul aswad dañuy defaat lañ defoon dañuy yëgateyaat suñu waxoon ne allahu akbar tàmbaliwaat nañ loolu danañ ko def ñaata yoon juróom ñaari yoon juróom ña bu ñu yeggee nag am na ñoo xam ne bu ñuy jeexal it dañuy yëkkati seen loxo nan allahu akbar déedéet booy jeexal amut allahu akbar bi ak yëkkati loxo bi booy tàmbali la ah? booy jeexal rek dangay ngay continuer dem ci gannaaw maqaamam ba ibrahima dégg nga maqaamam ibrahima bi yonentu saai bi mu paree rek dafa jàng laaya jo wattaxidu am ñu jàng wattaxadu min maqaami ibrahima musallan boo demee ba ci gannaaw maqaamam nag nga julli fa ñaari rakka Hmm? nga julli fa ñaari rakka waxuñ rek ne forcément ngay sës ci maqaama bi maqaama ibrahima mooy fii ibrahima doon taxaw di di di tax di di tabax kaaba gi waaw lu tax mu sëree kaaba gi léegi nag te foofu la ibrahima daan taxaw ci jamono Seydina Omar def daan jur raj-raj loo bu bari ci la ko euh, dégg nga reculer un peu pour foofu am espace waaye après ñu def fa loolu pour mu protéger ko moo tax li ngeen gis noonu du loolu la mais pierre bi nga xam ne moom taxaw mi ngi ci biir foofu dégg nga de léeg sax boo jegee di nga mën am euh, aperçu gis ko nga julli fa ñaari rakk loolu ñaare rakka yooyu nag ñoom la ñuy wax ñaari rakkay tawaaf dafa war nee nañ wa rakaata tawaafi intaxattama nga jàng fay comme li nga jàngoon ci ñaari rakka yële luñ jàngoon ci ñaari rakka yële fatiha ak kaafiroona rakka bu njëkk bi rakka ñaareel bi fatiha ak ah lixlaas ak wala xul wala ahad ban la ci benn la kon nag jeex na alhamdulilah dégg de ñaar yooyu ngay jàng soo jàngee yooyu ba pare moo jullee ba pare foofu li ngay def ci sa ginnaaw zam-zamang fa hmm? ci sa ginnaaw zam-zamang fa waxuma teenu zam-zam teenu zam-zam ci sa ginnaaw la nekk waaye biñ demee ci musée bi dem waa ji nee na mu ngi fan léegi ci mu ngi ci suuf terrain léegi yow mi ko doon laajte maanaam dañ koy koo kii foo xam ne nit ñi amatuñ ci accès mm-hmm. waaye ci diggante Safa ak Marwa la la la teen bi nekk waaye comme fontaine yi ñu def fii nii def nañ foofu ay fontaine yoo xam ne aussi mën nga fa naan zam-zam yonent bu mu paree dafa daan déw naan zam sam su naanaan zam-zam ba pare nag moom balaa moo dem Safa ak Marwa da daan ñëw nuyuwaat xajarul aswad waaye fóonaat ko soog a dem comme mënuñ ko def incha allah in few minutes comme ko def mën nañ koo yëgati loxo comme niñ defoon rek ñu continuer léegi nag pour dem safa ak marwa dégg nga de am nañu ñaari ponk yuñ defagum léegi defagum nañ ponk ihram defagum nañ ponk tawaaf mooy ñaari ponk ponk mooy pilier pilier mooy loo xam ne ci jaamu yàlla pilier mooy loo xam ne bu dikkut jaamu yàlla gi du baax te ci jaamu yàlla gi la bokk bokk la condition dañ koy jaawale nag ah rukun ak chart ah, buñ ne nangam dafa war mooy pilier la boo xam ne ci yëf yi la bokk te bu dikkut du baax ci tabax bi la bokk te bu dikkut bu baax am déet charte nag mooy loo xam ne bu dikkul du baax waaye bokkut ci ah mooy condition c'est-à-dire jàpp ci ndax ci julli la bokk jàpp bokkul ci julli de waaye bu dikkul ndax julli dina baax mu nga jàpp condition la ci julli loolu ay condition waaye li ñuy de wax nii mooy ay pilier la dégg nga de armal gi ñaareel pilier bi mooy tawaaf bi pare nañ ci tawaaf bi naan nañu zam dañuy continuer nag bu ñu doxee tuuti rek dinañ am fu ñu jaar à à droite pour wàcc nag dem safa ak marwa dem safaa safa la ñuy njëkkee buñ demee ba safaa nag yonent sallallahu alayhi wasallam ba mu jubee safa daf ne fi yàlla tàmbalee lay tàmbale abda'u bi ma bada allah wala mu ne ibda'u bi ma bada allahu bi tàmbale leen fii yàlla tàmbale jàng li jàng alaaya ja inna safa wal marwata min sha'airillah am na ñu koy jàng waaye mën nga ko bay jàng yonentu daf ko doon wax rek pour xamal nit ñi fu ñu war a dem njëkkee boo demee nag ba taxaw ci safa da ngay jox ginnaaw safa jublu kaaba gi daal di wax ñaan gi wala zikar si nga xam ne moom la yonentu daan wax mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir laa ilaha illa allah waxdah anjaza wacdah wa nasara abdah wa hazama al ahzaba waxdah am na brochure yi ñu yónnee woon mi ngi ci mën ngeen ko kii bu fekkee gisu leen ko woon dinañ ko yónneewaat ala ku ala kulli xaalin danañ ko wax aussi nit ñi topp ci ñi ñuy répété par benn par benn incha allah waaye yooyu nag dañoo bëgg dañ ko war a mokkal foog naa ne sax léegi war ngeen ko mokkal balaa ngeen a dikk des ko war a mokkal nag yooyu dégg nga bu ngeen ko mokkalul ngeen am ko fekk ñu ngi ko bind fenn ngeen di ko xool euh, am na ñun brochure bu ñu yónnee woon fekkee ne ñëpp jotuñ ci dinañ ko yónneewaat ci groupe bi bu ko defee di ngeen ci gis yii ñuy expliquer yépp loolu ngay wax boo ko waxee ba pare nag nga daal di ñaan répété ko beneen yoon ñaanaat répété ko une troisième fois ñaanaat soog a bàppeeku nag jëm marwa bàppeeku xam nga bàppeeku mooy nga soog a wàcc nag parce que mbartal la ah loolay ba nga bàppeeku euh, wala lébu yi xamuñu wolof yooyu nga soog a bàppeeku nag jëm marwa bi ngay jëm marwa nag di nga gis fu ñuy wax diggante ñaari mil yi maanaam ñaari green light yooyu seen buñ fa yeggee dañuy gaawal dox bi surtout góor ñi góor ñi waaye nag jigéen ñi bu leen am problème même bu ngeen dawut wala bu ngeen gaawalu dox bi bu ñu yeggee ci bële rek dañ leen di xaar dox ndànk ba ngeen agsi léegi nag bi nga jogee Safa jëm Marwa benn la boo yeggee ba Marwa nga jubluwaat ci Kaaba gi defaat la même chose la plupart nag duñ la bàyyi nga taxaw foofu mais même bu ñu bàyyoon ñu taxaw fay dinañ def ñaan bi kon ne di dem mooy nga def allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama alahzaba wahdahu nga ñaan waxaat ko ñaan waxaat ko ñaan soog a bàppeekuwaat nag jëmaat fan safa bi nga demee safa bi nga demee marwa ñëwaat safa ñaata yoon nga am deux aller retour la di du benn wala deux la mu nga waaw kay ndax safa am ñoo xam ne aller retour bi dañ foog ne benn la mooy ñi nga xam ne ci téere yi jàng wala dañ koy dégg rek waaye boo yeggee saf marwa am nga benn nga ñëwaat safa am nga ñaar nga defaat la même chose cette fois yëpp ñaan boobu ñu wax noonu da koy def donc bi nga jëmee bi nga jógee safa dem marwa am nga benn nga dellu si safa am nga ñaar nga demaat marwa am nga ñett nga dellu safa nga ñeent nga demaat marwa juróom nga dellu safa am nga juróom nga demaat marwa am nga juróom ñaar bi nga amee juróom ñaar nag tawaaf bi jeex na dégg nga waaye ci après juróom-ñaareel comme ni ma waxee da nga def ñaan googu tawaaf bi jeex na dégg nga de bi tawaaf bi jeexee nag léegi lan moo la dese maanaam as leen ma dox bi safa ak marwa saayu saayu bi kii na am na sax ñuy wax tawaaf benn safal waaye saayu moo gën a éloquent saayu la tudd mooy dox diggante safa ak ak marwa euh, bi nga paree foofu bu dee góor ñoom kat yi mag ñooñu dañuy wat seen bopp dégg nga bu dee jigéen ñi dañuy wàññi dégg nga góor nag bu wàññee it baax na waaye bu watoo nag moo ëpp yool moo gën a baax ndax yonentu dafa watu woon sallallahu alayhi wa sallam hmm? waaw yonentu xam ngeen ne jàng ngeen de mu ñu leen di wax ne karawam dafa guddoon yonentu musta watu lu dul mu ñëw mu dem aj wala ba umra waaw bu demaan aj ba umra nag dafay watu ba pare ñaanal ñuy wat ñu ñu wat ñu watu ñu ne ko ak ñu wàññi mu ne yàlla na yàlla yërëm ñi watu ñu ne ko wàññi mu ne yàlla na yàlla yërëm ñu wàññi itam ñaanal ñii ñetti yoon soo ko ñaanal ñële waaye bu dee jigéen nag moom du watu dafay wàññi rek bi nga watoo wala bi nga wàññee sa umra gi officiellement officiellement jeex na umra gi jeex na ngay delluwaat sa kër changé yaa ngi delluwaat nga daal ci ni nga meloon umra gi jeex na alhamdulilah nga ñaan sa borom eh, nangul la lii ci gàttal moom mooy mooy umra compliqué wut jafewut dégg léegi nag yi ñu waxoon ne dañ koy tere ngeen bàyyi ñu bàyyi ci xel waaye li la ciy dimbale mooy yi wax ne bëgg nañ ko nga def ko balaa ngaa armal nga def ko soo defee yooyu doo saxlaa def yi ñu tere ba dara di la ci fekk ñoom dañuy sang ba pare doole du wattu dagg seeni wéy. du ci dara boo ci ci njëkkee baax na. boo ci njëkkee boo ci njëkkee baax na amul amul amul amul toftal boo ci njëkkee baax na yes yaa booy. waaw bu ñu or bu ñu pa pa balaa ngaa dem karaw karaw yi ñu doon wax yëpp karaw bokk bokk ci balaa pour préparation bi karaw bokk bokk ci. pra waaw ah, waaye waaye bu umra gi jeexee maanaam bu dox safaak maroo jeexee. dangay dagg ci sa karaw dara loo ci dagg rek waaw lu toll di sax lii polu baaraam baax na waaw waaw daggal ah déedéet koy dagg da koy dana dana da koy dagg ak nu létt yi du sa karaw yi bopp la karaw gi rek la sa karaw original bi la da nga koy dagg noonu soxlawul fireeku soxlawul fireeku waaw Aysatu aha Mhm. Mhm. Mhm. yi nga nar a sol doo ci def parfum déedéet doo ci def parfum yi nga nar a sol déedéet doo ci def parfum nee na li ngay li ngay sa yaram rek lañ la nga def parfum mais yére yi ngay sol doo ci def parfum mais nag boo fekkee ne bi nga ko solee ci sa yaram bi am parfum takk na ci c'est pas waaye nag bul jël yére yooyu def ci parfum moom ba pare sol ko yére yi ngay sol bu ci def parfum yooyu ñoom ndar-ndar yi ñoo koy so what kind of what kind of perfume regular perfume wala wala wala perfume boo mën a def loolu kii la rek bi eh, yooyu détail la xam naa fi ngay wax ayca <laughs> any question ah ah heure bi jot na ah léegi ñu bëgg a préparer nañ dem waa ñu afam kenn amatul question kenn amul question jeex na ah you have a question ah you have if you have something we can do one on one waaw kon benn njël benn question rek soo ko dem ah te ñaan eh. <laughs> soo gi ne la kon woddu rek wodd woddu rek góor ñi fa ngeen woddu woddu rek ah. mu ne ñun góor ñi dañuy solee armoire mu ne ko woddu rek a ah, nga woo soxna si mu dimbale la <laughs> labbayk allahumma labbayk mbokki jullit yi rawatina yéen ñi dëkkee Amérique te bëgg a dem umra ci atum 2022 bi ànd leen ak waa Almadina International Travel mi leen indil package voyage umra ci 2999 dollars li ci gën a neex seen umra bi dafay yamook rabial awal di gàmmo di juddug Seydina Muhammad di 6 octobre au 17 octobre ànd leen ak waa Almadina International Travel ñu wàcc leen Médine ngeen ziyaare sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de seen kullu ziyaar boromi xam-xam ñu guidé leen ngeen gën a xam nan la ñuy defee umra dalal leen ci hôtel 5 étoiles nga mën di julli juróomi waxtu yi ci jàkkay Seydina Muhammad lii lépp ngeen ci ànd ak Almadina International Travel di ay professionnel ci wàllu voyage umra ak aj Makka te nekk fii ci Amérique fay leen paket package voyage umra 2022 bi ci seen enregistrement ba ci seen visa ak seen logement ci hôtel 5 étoiles ak seen transport ci biir Makka ak Médine Almadina International neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars su ngeen jógee Médine ñu indi leen màkkatal mukaram ngeen def seen omra ci ni mu gënee ñu accompagner leen ngeen ànd ak ay boromi xam-xam ànd ak imaam Mouhamed Sakho mu gide leen teg leen ci yoon ba ngeen xam naka la ñuy umra te weeru gam mu ngi leen di fekk ci Makka ak Medine li mooy umra VIP lépp lépp ngeen ciy fay 2999 dollars téléphoné leen gaaw ci 3 4 7 5 9 6 2 0 3 6 mbokk yi paquet ji umra baa ngi noonu nga fay 2999 dollars dem ci Makka du 6 au 17 octobre ànd ak imam Mouhamed saako ak Almadina International Travel